actuelle bi def na 16 ans euh, bi mu fi nekkee ak léegi euh, ci 16 ans yooyu maanaam benn mandat électif rek la ci jot a moo ci jot a am bu quatre ans parce que euh, dañoo noté ne dafa nekkoon intérim de mille 2008 ba mille 2013 tot ñun nag dañoo gëm ne ab association bu toll ni douzième gaynde nga xam ne association réew mi yëpp la war naa mën a am assemblée général digne de dañ ko doon dénoncé di ko yemale ci suñu biir di ci wax mais à chaque fois maanaam ñi doon dénoncé duñ leen déglu. am na ci ñoo xam ne ay yore nañ ay ñetti poste nekk ci bureau maanaam foofu lañ gisee ne depuis mën nañu wax ne lu mat fukki at. ay cooptation rek ñoo fi nekk association warta dund ci cooptation dañ ko war a def tëgg assemblée générale sénégalais bu mënti doon bëgg bokk ñëw bokk